beneen litige foncier dikkaat na Ngor bi pa mu ñel Surf Paradise mu nekk li nga xamante ni ñoom ñi fa bàyyeekoo acharnement lañ ko jàppee. leen ne ñu ngi acharn am benn acharnement bu jëmale si ñun y' a pas gis neen Ngor li fa am xeexum parking ba yàlla def li mu def suñu kër fa dem toog président de la république ñu waxtaan ñu teg lépp si suuf tey nag pour li nga xamante ne mooy intérêt benn nit la ñu attaqué fii si corniche Almadies bi tey suma parking Surfer Paradise dañ ko daggal benn doomu général 500 mètres carrés te parking bi ngeen gis ni si biir dañuy employé de quarante à 60 personnes ça dépend si saison bi. Omar Sey moom parking boobu moo ngi xam ne ni rek Descos da ko wax ni amu fa benn permis d'occupation mu nekk lu ñuy nakarloo bu baax. fii tey euh, ku mel ni El Hadj Omar Sey je fais pas sa publicité. mais tey il est le président de la confédération africaine de surf il a le même statut social que le président de la confédération africaine de football il est membre du CONOS donc tey ce site bi nga xam ne par exemple ñoom dañ ne dañ fi bëgg ñëw attribuer pour le fils d'un général un certain Mbagne un jeune Mbagne mais ce jeune Mbagne là il a de quoi plus méritant que El Hadj Oumar Seye parce que son papa est général on est dans quel pays. yu wax ni rek duñ ko bàyyee noonu ndax suuf si. daa nekk lu ñu moom. waaye ñàkk fayda si bopp am la yàlla fayul yàlla fayul ko ñàkk fayda ka ñàkk fayda yaa koy yet fii kenn ñàkku fayda ndigit ñoom ñoo am fayda dinañ toxal ñu latéral bi ñu leen a xaar de pied ferme nag doomi général ax doomi colonel ax doomi président lañ si yemaale kamu mën a doon rek ñun ñu ngi laa xaar bu ñu reyee bañ jeex nag ba kenn nekkoon fi kur bañ ah bu boobaa ñoom ñu def lu leen neex loolu lañ bëgg leeral àddina gépp Omar Sey mu ngi foofu lu mat fukki ak juróomi ak am itamit autorisation mairie bi ak jàppandal kilifa yi fa bàyyeekoo mu ngi xamle ni rekk mbir mi duñ ko bàyyi mu sedd ndax foofu seen cosaan la